bismillahi rahmaani rahim hadaani lil xalifati ababacar sima hadaani wa zawadani bi idraakil maani fa in lam yakun baabul xalifa ismatan li nafsi fama maana rida bi wujudiha mbokk yi asalaamualeykum wa rahmatullah ñu ngi leen nuyu bu baax di leen eh, ziyaara ñu ànd ak waa Widish Vision nekk fii ci xadara bu sell bi di Tiwaawan eh, ñëwoon ci programme bi ñuy wax séminaire de mise à niveau 70 maîtres coraniques de la Casamance nga xam ni maître Cheikh Ahmed Tidiane Tambidou promoteur des daara euh, muxaddam moom moo ko taxawaloon ak Serigne Sid Ahmed si al amin fa tabarakallahu macha allah ñu nekk ci plateau bi ak ay boroom xam-xam ku ci mel ni mu euh, Muniru Ngiraan nga xamante ni ñoom ñoo yoroon organisation bi yëpp ak euh, Oustaz Baye Niass ak Oustaz Abdoul Aziz ñu war a ñëw ak ñoom rek ci ñu leeralal ñu ay yennet point euh, kon dañuy nuyu premièrement Hadj Mounirou Ngiraar euh, dalal ko Hadj Mounirou ñu ngi lay nuyu bu baax di la dalal. Euh, asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu sëñ kar ñu ngi lay delloo nuyu bu baax tabarakallah di lay delloo ziyaara di rafetlu bu baax a baax a baax ci invité gi nga ñu invité ci plateau bi tey di nuyu suñu mbokk yi ñu bokkal plateau bi. tabarakallah Abdoul Aziz Koli nga xam ne moom suñu sëriñ la mhm. xaaji Baye Niass moom it suñu sëriñ la ñu ngi rafetlu plateau bi bu baax a baax a baax tabarakallah mhm. tabarakallahu macha allah xaaji mu nuru jërëjëf euh, ni nga nuyoowee am na solo xam naa fi ñu njëkk a ñëw ak yow rek mooy euh, laaj la formation bi nga xamante ni soixante-dix mètres coranique maanaam euh, soixante-dix muallimul quran ñoom ñoo jugee ba Casamance ñëw fii Tivaouane pour def formation may ma di la laaj euh, formation bi nga xamante ne def ngeen ko ak ñoom nga xam ni yéen yéen a yoroon programme bi yëpp euh, ban impact nga yaakaar ni maanaam ban jeexital nga yaakaar ni dina ko am ci 70 mètres yi nga xam ne ñëw nañ mun delloo Casamance. waaw tabarakallahu sëñ Babacar euh, sa question boobu am na solo. <laughs> wax dëgg yàlla parce que man jàpp naa ni ñoom comme ñoom ay jàngalekat la ñu jóge ba Casamance. Mm-hmm. ñëw Tiwaawoon ñu dalal leen mhm. accueillir leen mhm. euh, comme ni ñu leen ni leen sëriñ bi dalalee mhm. ak yitte gi mu leen jox ak gëdd bi mu leen jox ak li ñu fi jot a gis ñoom depuis bi ñu ñëwee Tiwaawan ci suba ba tey ak li ñu fi jot a dégg ak place yi nga xam ni visité nañ ko man jàpp naa ne am na benn impact bu rëy rëy boo xam ne dina ko def ci ñoom bu ñu delloo parce que tey mi ngi mel ni rek euh, élèves yi nga xam ne ñoom ñooy jàng ci école yi wala ñu mhm. koy jàng ci daara yi mhm. dañuy faral di organiser mhm. ay ay fin d'année nga xam ne bu at mi jeexee dañ leen di defal benn fête fête googu noonu du dara lu dul pour encourager leen pour ñu ñu gën a góorgóorlu gën a xam ne ñoom fi ñu teg seen tànk foofu la bu ko defee élèves yi nga xam ne gis nañ gis nañu euh, prestation bi nga xam ne seen mbokki élèves yëpp dañuy ñëw fekke ko mhm. seen parent seen parents yi ñëw fekke ko mhm. loolu ñuy gis noonu. Mhm. day tax bu ëllëgee bu dewee ne ñu gën a jàngat bu baax. kon nag ñoom. Mhm. presque noonu la mel rek. Mhm. nga xam ne ñoom ñëw gi ñu ñëw fii. li ñu fi dégg. ak li ñu fi gis. dana tax bu ëllëgee te bu ñu delloo seen seen seen dëkk. ñu gën a taxaw taxawaat bu dëgër. nga xam ne ñoom fi ñu teg seen tànk foofu la. dégg kon jàpp naa ni impact boobu daal. dina ko def ci ñoom bu baax a baax a baax incha allah. dëgg la macha allah xaaju munuru kàddu yi rafet na am na solo. kon su ma déggee daal ni nga waxee mu mel ni képp ku ñëw fii tey def formation ci maanaam muallim yi euh, boo delloo loolu day nekk ak ñaax ci yow bu bu ëllëgee buñ dee ñëwaat nga bokk ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñëwaat te koo xam ni sax euh, gàmmu Tiwaawan ba gàmmu Tiwaawan nga am occasion tey buñ la mayee occasion bu mel nii mu nekk sant bu rëy ñu di ko sant itam Maître Cheikh ndax ginnaaw yàlla moom la euh, bu loolu jàllee ma di la laaj xaaj yu Xaaji Muniru maanaam euh, njariñu alxuraan ci dundu doomu aadama waaw tabarakallah suñ Babacar euh, wax dëgg yàlla question boobu moom mm-hmm. mën naa wax ne buñ ci doon wax fii ba suba mm-hmm. du jeex parce que majaal la boo xam ne yaatu na lool mm-hmm. njëriñal alquran ci dundu doomu aadama moom dañuy wax ni moom lastighna anhu alquran ni yaram li lekk ak naan mel ci yaram mhm. noonu la mel ci ruuxu doomu adama moo tax doomu aadama mënul ñàkk bañ a jàng alquran mhm. waaw mhm. comme ni nga xamee ni mënta ñàkk lekk mënta ñàkk naan parce que bu ko deful day faatu dëgg la alquran noonu la mel parce que moom mooy afdalul azkar dañu wax ni ruux turu yàlla lay dunde te tur yàlla bi ci gën mhm. mooy alquran alquran alquranu afdalu zikri zikar yi gën ci zikar yi mhm. mooy alquranul karim moo tax moom mhm. doomu aadama mënul ñàkk a bañ a jàng alquranul karim sànq rek wax naa ko fii ni euh, doomu aadama bi pour ñu xam cofeelam ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam il faut que dañuy xool naka la jëflanteeg alquran ni nga taxawee ci alquran rek dëgg noo mel ci alquran rek noonu la sa cofeel toll ci yonent bi inna al qurana huwa al misaanu taarifu minhu maa xawayta min al aswaaqi wa sadami mhm. loolu la Cheikh Alhaaji Malick wax ci xilaasu zihab kon nag maa sopp yonent bi moom mhm. jarul nga di ko wax ma sopp yonent bi jërul nga di ko manifester mm. ñuy tagg yonent bi ngay jóg di jël sa xaalis di joxe mm. wala nga di ko uh, muy xaw a niroog ngistal mm-hmm. dañuy xool rek ni nga mel ci alquran te sayidna muhammad sallallahu alayhi wa sallam bi mu fi bàyyi koo mm-hmm. dañoo dem ci sunu yaay sayidatuna aïcha mm-hmm. mi nga xam ne moo nekkoon soxnaam taqawoon ak moom ñu ne ko dañoo bëgg nga wax ñu lan mooy jikko yonent bi gom gannaaw yow yaa yow yaa taxaw woon ak moom mhm. mu ne ak jikkoom jikkoom daal du mhm. lenn lu dul alquran lu ngeen ci fekk ci ndigal mhm. moom la daan jëfe moom yonent bi waaye lu ngeen ci fekk ci tere bàyyi woon na ko wa kaana xuluquhu alquran moo tax boo delloo ci xilaas ba tey mi nga naan wa kaana xuluqa nabiyillahi laysa lahu xuluqun siwaahu moo tax fa faaqal kulla fi karami yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom amuloon benn jikko budul alquran moo tax mu kawe mboolem anbiya u yëpp mu mm. féete leen kaw parce que muajiza bi mm-hmm. gën a rëy ci muajiza yonent bi mm-hmm. mooy alquranul karim muajiza yonent yi am yëpp mm-hmm. gis déggatoo ci benn waaye mucjisa bi alquran bi yonent am moom mhm. ba léegi mooy continuer daamat ladayna mhm. fa faaqat kulle mucjisatin min mhm. annabiyina is jaat walam tadun kon tabarakallahu doomu aadama moom munul ñàkk bañ a jàng alquranul karim munul ñàkk bañ a jëfe alquranul karim parce que mooy léppi dundu doomu aadama léppi dundu doomu aadama daal mooy alquran ci gàttal waaw ah, macha allah xaaju muniru amati na solo ni nga ko indee kon daal ma déggee ci ni maam xalifa mi ni sopp na rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bu buñ ko tuddee mu jooy saraxee te munul dara ci alxuraan sopp gi des na kooku soppul yonent bi kon pour ñu xam dëgg-dëgg sa cofeel ci rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il faut nga mel noonu ci alxuraan kon loolu mbokk yi ñu ñu ñu bàyyi ci xel bu baax a baax tabarakallah xaaju mu nuur ñu ngi lay sant di la gërëm Euh, ndax depuis ci suba ba léegi yéen a ngi ci amoo leen jot yéen a ngi sonn wax dëgg yàlla mais nga accordé nu temps bi ñëw kon yàlla na yàlla fay ci barka alquran bi jaay rasulullah sallallahu alayhi wa sallam euh, beneen bi rek xam naa ni ci lu gàtt rek mooy ndax lu mel nii euh, c'est la première fois soixante-dix maîtres coraniques déplacé wu ñëw déformation bi wala yàgg na fi am. waaw bii mooy première édition bi moom c'est la première fois lii am. Mhm. lii mooy première édition bi te jàpp naa nit du yem fii. dëgg la commencement la rek. parce que mhm. wàññi boo gis tamit. Mhm. ci benn lay tàmbalee. dëgg la ndax dañuy wax ni maa kaana lillaahi. daama wattasal. wa maa kaana li gayrillaahi inqataa wan fasal. lépp loo xam ne nit ki ba mu koy tàmbali. ngir yàlla rek moo tax mu tàmbali ko. loolu day continuer. dëgg waaye loo xam ne bi nga koy tàmbali yàlla taxul. bu yàggee. ci ci ci ci ci inna lillahi wa inna ilayhi rajiun rek la mujj. dëgg la waaw gannaaw lii nag. Mhm. bii mooy première édition bi. Mhm. te yàlla rek moo tax ñu def ko. Mhm. am nañu yaakaar ci ni. dana continuer. te dana gën a yokk. ndax alquran moom ku ko xam-xam ne. tànki kanam la am amul tànki gannaaw. dëgg incha allahu taala jotaay bi nii mu mel nii. bu soobee yàlla yaakaar nañ ni bu déwénee. comme séntu nañ fa soixante dix mètres coraniques. bu déwénee dinañ séntu lu ko ëpp. incha allah lu ko ëpp wallaay wallaay ndeysaan ah macha allah xaaju ni nga ko waxee. Euh, c'est la première fois waaye loolu itam euh, damay wax toujours rek ñu sant gërëm merci Ahmed Tidiane Tamb ndax loolu du liggéey bu ndaw bu njëkk da ngay dégg Casamance di fa dégg yoo xam sax daf lay ragalloo waaye tey soo déggee ñu ni soixante-dix personnes déplacé wu nañ te ñooñu ay borom xam-xam lañ dañuy jàngale ñu déplacé wu ñëw ci université Cheikh Seydil Hadji Malick pour yokk seen niveau kon loolu ñu sante ko yàlla bu baax a baax waaye ñu ñaanal maire Cheikh Ahmed Tidiane Tambadou ci taxawaay boobu nga xam ne mi ngi koy def ci diine islam d'abord waaye mi ngi koy def ci tarixa cheikh mi ngi koy def ci kër Cheikh Sidil marik Malick yàlla yokk taxawaayam Haaji Munir ñu ngi lay jaajëfal di la sant di la gërëm xam naa ñu jàll ci Baye Niass moom tamit mu leeral ñu quelques point ginnaaw ba ñu dalalee mu euh, Muniru euh, mu sotti fi xam-xam bu sell bi macha allah yàlla yàlla dolli ko barke bi jaay rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi leen nuyu yow tamit eh, di la masawu coono ndax ci suba ba léegi noppaluwu leen eh, ñu ñëw ñu bëggoon rek Baye Niass nga ñëwal ñu ci boo xoolee jamono ji maanaam ni ñuy tuumaalee sëriñu daara yi ak ni ñuy tuumaalee daara alxuraan yi dafa bëri trop maanaam niñ leen di jaboliser ba tey jii nii ku xamul sax lan mooy alxuraan wala nàmpatalu leen si da nga yaakaar ne alxuraan moom Euh, mu euh, du lu baax nañ nañ ma jéggal ci terme bi waaye ci presse bi ci média yi ci rajo yi foo mënti dégg dem rek yaa ngi dégg ñuy wax naka su noonu ci alxuraan wala ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy jàngale alxuraan. aouzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim allahuma salli ala sayidina muhammadin wa ala wa sahbi sëñ Babacar maa ngi lay delloo nuyu bu baax <laughs> yenn it di leen masawu coono ndax ci soo ba tey yéen ànd ak ñun ci liggéey bi di nuyu bu baax suñu xarit suñu wëllëre mhm. suñu doomu nday xaaj mu niiru ngiraan mhm. di rafetlu kàddu yi nga xam ni moom la jiital fa tabaarakallaahu mhm. ni mu ko waxee rafet na lool mu mel ni pour ñëw ci question bi nga xam ni moom nga ñu laaj mu doon laaj boo xamante nii dafa mel ni ci ñeenti ci ñeenti ponk ci la ci la tënku mooy dañu wax ni yàq gi ni yàq deru doomu daara yi ak mhm. daara mhm. ak alxuraan dafa mhm. mel ni ci loolu la mu mel ni am na ñu koy def ak li ñuy def ak ñin koy def ak fin koy defee ñi koy def mooy ñi nga xam ni ñoom ñooy yàq deru alxuraan ak di jéem a tilimal deru daara ak di jéem tilimal deru ñooñ daara ñooñu kenn amul mes man bokk awma lu ma leen di wax parce ñooñ ci seen liggéey ci leen nekk noonu daara lañu hmm. ñooñu noonu daara lañ hmm. xanaa di leen wax rek ni hmm. yàlla wattu na téeréem bi wattu na ñuñ téereem bi képp koo xam ne song nga leen xamal ni amuloo kenn ak affaire yàlla nga amal affaire subhanahu wa taala te kenn mësta songu téere bi am ci ndam ndax Muhammadul Busiri nee na maa xuribat qattu illaa aada min xarabin aadal aadi mulqiya eh, wahiya mulqiya kenn mësta takk xare mhm. jublu koo alxuraan pour xeex ak moom lu dul ni mujj nga dellu mhm. deltu ginnaaw ca loola kon yaakaar naa ñooñu su ma amee lu ma leen di wax loolu laa leen di wax mhm. mu des li ñuy wax li ñuy wax mooy ay tuuma ak ak wax yu ñaaw di ko wax ci ay sëriñ daara wax yu ñaaw yooyu moom euh, léegi dañ ko war a jàngat nag ñu xool li nga xamante ni dañu koy wax te mu am ci daara te waru cee am ñu xool lu ko ci dugal mhm. ñu génne loolu sànni mhm. su ko defee da boobaa danañ mën a xàmmee li nga xamante ni képp ku waxati ci daara lu dul euh, noona rek mhm. ñu mën daal ci sa kaw li ma bëgg a wax foofu mooy dafa mel ni dañoo sécuriser wul bu doon daara ñooñ daara ab kër la boo xamante ni dañ faa nekk sécuriser wuñ ko ba nga xam ni ki ciy dugg dañuy xam kan mooy dugg ci kër gi ak kan mooy génn ku mu neex rek nga jóge fële Mhm. mën ngaa bañ a yaroo sax ci daara mhm. mën ngaa bañ a sax daara ji mën na laa bañ a former mhm. nga jóge fële am say yeneen i mbir say yeneen xalaat yoo xam moo nekk ci sa bopp waaye am na intérêt bu lay nekkal ci daara nga ñëw sol mbubbum ñooñ daara kon su boobaa comme que aaruñu woon kër gi boo ko defee buñ ñëwee dañ lay fekk ci biir kër gi kenn du mën a wax ni bokkoo ci daara loolu kon am na laaj na liggéey boo xamante ne war nañ cee taxaw loolu nag liggéey boobu ñan ñoo koy taxawal mhm. yaakaar naa ne sëriñ daara yi war nañ ci jouer role mhm. waaye état bi tamit war na ci jouer role mhm. boo xam ne dafay sécuriser dëkkam ba nga xam ni du sàmba Sugum Gay mu nekk day jóge fële rek daal di ñëw indi dajale ay gone ñu ni sëriñ daara la su ëllëgee bu defee njombe kenn du ko mën a génn ci sëriñ daara parce que doo ko mën a doo ko mën a xaa xàmmee mhm. fekk moom am na yeneen jubluwaay mhm. yoo xam ne wuute naa ak jubluwaay yi sëriñ daara yi am mhm. kon dama bëgg a wax ni millier bi la ñu war a sécuriser ba nga xam ne ñi ne ci biir rek ñoo ciy nekk képp ku ci war a dugg si ñu xam mooy kan ñu xam mooy lan lan mooy lan mooy nekk ci ginnaaw action yi muy def yan lan moo ne ci ginnaawam ñu deful loolu dinañ yàgg di mën am yoon wu nu jaar mhm. pour mën a tilimal daara mhm. parce que ki koy def day sol mbubbum daara ba nga xam ne doo ko mën a xàmmee mhm. tey jii masalan yow soo ñëwoon ci euh, daje bi nga fekk fii nit koo xam ne dafa sol badge bu mel nii daal di def safaan booy àtte da nga naan ci ki bokkoon ci organisa euh, organisation bi. Mhm. moom moo def nangam. Mhm. te su boobaa ñun duñ ko mën a weddi parce que dafa yor mandargal luy mandargaal. Mhm. bokkam foofu. dëgg kon wàllu woow man foofu laa doon euh, waxee. beneen bi ci des mooy euh, jamono comme am na lu ma laaj fi mu toll nii. mooy ñu xoolaat daara. comme que mën nañu wax ni réew mi ñaar moo fi nekk. kumba am ndey ak kumba amul ndey. kumba am ndey mooy ki nga xam dafa bëgg citoyen bi nga xam dafa nekk ci Sénégal mhm. te bëgg doomam jàng tubaab mhm. kooku kumba am ndey la mhm. ndax ci yaakaar naa ni impôt yi nit ñi di fay ci la ñuy taxawal yi ñuy taxawal waaye nag kooku moom am na wutal nañ ko koo xamante ni moo koy jàngalal doomam boobu mm-hmm. di ko jàngal ci anam bi nga xam ni moom la ko bëggee mm-hmm. ki nga xam ni nag moom dañ dama préféré sama doom jàng daara mm-hmm. ñu ne ko waa yow di nga fay impôt booy fay sa courant ak sa ndox ak sa leneen waaye sa impôt boobu ngay fay dañ koy viré yóbbu ko ca école ba su ko defee di ko fayalee ki nga xam ni moom mooy Euh, kumba nda kumba am nday mhm. waaye kumba amul nday moom duñ ko mhm. fayal dara jaakaar naa loolu tamit laajat na ñu jàngataat ko mhm. xool ba xam ndax yelloo na man man dama contre benn baat dañuy dimbali daara yi kenn warul dimbali daara dañoo war a tabax ay daara teg norme yi nu teg pour nit ñi mën a di ku bëgg a jàng alxuraan da dem ci sa koñ mhm. daara ju mag jafa état bi ubbi mhm. wut ay jàngalekat alxuraan yu mag yu mhm. bëree bëri yoo xam ne mat na sëkk nga dem yóbbu leen fa ñu ñu orienté la fa nga dem bindu ñu jàngal sa doom alxuraan gratuitement nga te doo fay dara yaakaar naa foofu la ñu war a dem waaye naan dañuy dimbali daara loolu moom yaakaar naa ni instant bi Sénégal waroon na ko waroon na ko wees kon boo ko seetloo dafa mel ni kii tuumaal laa njëkk a wax ni mhm. kooku kenn mënalu ko dara xanaa message bi ma ko wax rek ni ko yàlla la amal affaire mhm. ak tuuma ji mhm. tuuma ji jar naa jàngat lépp loo xamante ni da cee nekk te muy tirimal daara ñu génne ko ci waaye tamit kër gi nga xam ne mooy daara war nañ ko sécuriser ba nga xam ni ku ci bokkul doo ci dugg waaye tamit état mi nga xam ne mooy ju moo njaboote ñëpp mhm. war na eh, génne kumba am ndey bee kumba amul ndey mhm. ci biir ci biir benn réew yaakaar naa loolu moo tënk mhm. kàddu googu oh, su ko defee ñu delloo la waat eh, kàddu gi rek incha allah macha allah macha allah oustaz Baye Niass eh, li nga leeral am na solo trop kon mun nañ si déggee ni mm, war na am organisation boo xamante ni ni école française bi organiser woo ba nga xamante ni classe boo dem metre ba yor na benn liste boo xamante ne élèves yëpp ñu ngi ca biir mu rappel xam ñi ñëw xam ñi ñëwul ba su kaneen ñëwee dugg ci classe bi mu xam ne kii bokkul ci classe bi kon organisation boobu ni ma déggee sa wax war na am noonu ci daara yi beneen bis des tamit mooy euh, du ku tëb rek taxawal sa daara kon kuy taxawal daara da nga war a dem ci état bi ñu jox la ndigal pour nga taxawal daara même bu dul ci état bi sax war na am benn organisation wala association boo xamante ne maître coranique yi ñoom ñooy ŋànk association boobu nga xamante ne ñoom dañuy saytu daara yi nga xamante ne ñu ngi koy ubbi ci gox bi wala ci dëkk bi ndax am na daara yoo xamante ne taxawal nañ leen mais doxewuñu normi daara loolu dégg naa ko ci sa ci sa ci sa kàddu kon association boobu suñ ko taxawalee nga xamante ne borom xam-xam yi ci dëkk bi wala yi ci réew mi yëpp ñoom ñooy nekk ci biir association boobu ñuy wër nag di saytu daara yi daara bi valable na war nañ ko jàllale wala war nañ ko arrêté kon loolu suñ ko dee def yaakaar naa ni tuuma yi am ci sëriñu daara yi ak ci daara yi dina di dina dina wàññeeku Baye Niass mu mel ni daanaka sa sa sa kàddu gu njëkk sax da nga ci dugalaale sax sa deuxième question mooy modernisation des écoles coraniques naka la ñu war a mën a moderniser école coranique ba nga xamante ni day jamono ji alxuraan du changé message u alxuraan du changé fii ba àllaaxira du changé ci tontu suñu sëriñ Mawlaa Cheikh Seydi Abdoul Aziz Al Amin mhm. euh, radiallahu anhu mhm. euh, sëriñ Sidi Ahmed wax na ko ci suba mhm. bu ñu ko laajee ci mbiru moderniser daara mu ni ah bu ñu dee moderniser daara de dañu fexe ba mu yem ci mhm. tabax yi mhm. tabax yi ñu yeesal ko mhm. wanag yi gone yi dem ñu yeesal ko wutal leen ay nekkuwaay yu baax wutal leen lekk gu baax wutal leen maanaam yooyu daal bu fekkee yemale nañ moderniser bi ci loolu baax na xam naa bu fekkee dafa jëm tam ci wàllu njàng mi mhm. mën nañoo xool façon jàngalin mhm. parce que nit dina jaar ci aw yoon di jàngale mhm. nga wan koy weneen yoon wu gën a dëppook jamono gën a gàtt mu jaar fa ba lam daan coono ba mu daan am du ko am du ko am ndongo li muy jàngal coono du am coono boobu te temps bi ñu daan def tamit pour am résultat gën a gàtt méthode yooyu tamit jar naa mën nañ ko wax boole ci li nga xam ne moom la ñuy moderniser daara maanaam nga xam nit ki dañ koy yoon wi mu daan jaar mm-hmm. pour jàngale euh, xam-xam mën naa gudd mm-hmm. ñu wan ko yoon wu gën a gàtt woow mm-hmm. coono bi mu daan daj ñu wan ko lu gën a euh, wàññeeku ci coono waaye temps bi mu daan toog pour def résultat temps bi gën a wàññeeku yaakaar naa loolu daara soxla na ko tey ndax jamono bi ci boppam moo gaaw dëgg la temps bi nit ki amoon euh, démb amatu ko mm-hmm. Mm-hmm. kon yaakaar naa bu dee loolu tamit ci mm-hmm. euh, côté moderniser daara loolu dinañ ko soxla kanta nag moderniser programme bi nga xam ni moom la ñuy tëral ci daara di indi tëral beneen programme bu yàggee da dan da daf ñuy génne ci euh, programme bi nga xam ni moom la mag ñi bëggoon ci daara ak li nga xamante ni ndax chaque benn programme boo tëral da nga am loo ci visé mhm. ki nga koy jàngal dafa am looy xaar ci moom boo lëggee mu doon ko mhm. yaakaar naa buñ ko buñ ko wëlbatee carrément nag mhm. su boobaa tamit beneen nit daara beneen nit lay produire bu bokkul ak bi nga xam ni moom la maam Cheikh Seydi Hadji Maalik daan génne bu bokkul ak bi nga xamante ni moom la maam Borom Touba daan génne bu bokkul ak bi nga xamante ni moom la mag ñi baax ñi nekk ci réew mi daan daan génne waaye modèle bi nga xam ni Euh, moo fi nekkoon ci daara si mhm. Sidi Hadj Malick génne ca mhm. mam borom Touba génne ce mhm. yeneen mag ñu baax ñi nekk ci réew mi génne ko yaakaar naa modèle boobu ci wàllu message bi daara yor bëgguñu ko ko changé waaye nag bu dee tabax yi mën nañ ko changé colka gi nekkin yi ak ba ci sax méthode yi nga xam ne moom la ñuy jaar pour jàllale xam-xam bi yaakaar naa bu fekkee loolu mooy moderniser daara loolu ahlan wa sahlan ci mm-hmm. moderniser daara waaye bu fekkee leneen la nag mm-hmm. kon loolu daara soxlawu ko asalaamaaleykum wa rahmatullahi macha allah macha allah Baye Niass wax ji amatina solo comme ni nga ko waxee rek moom laa wax ci début bi ma ni euh, message u du mës a moom la ñuy wax contenu ak contenant euh, ndax euh, comme ni nga ko waxee mun nañu changer condition yi nga xamante ni moom la ñuy nekkee fii utal leen ay yëre yu normal utal leen ay matelas yu nooy yu ñu tëdd changer leen yooyu noonu yëpp waaye message bi nga xamante ne moom moo nekk ci alxuraan ñu war ko génn ci alxuraan sol ko seen bopp yaakaar naa ne loolu moom amul dara luñ ci changé ni ko mag ñu baax ñu indi woon ku ci mel ne Cheikh Sidil Hadj borom Touba yaakaar moom la ñu yor toujours di ko transmettre xale yi nga wax loo xamante ne nag rôle état bi la mooy ñi nga xamante ni dañuy xëtt frontière ñëw di dugg ci Sénégal di ànd ak seen i ndongo daara te ñu ci bëri boo xoolee ba ca biir business lañ ko def ndax xale yooyu ñu ànd dañ leen loo buñ leen dee yalwaanloo ñuy ñëw verser te ñu jàpp ni waa Sénégal la wala ñu jàpp ni euh, borom xam-xamu Sénégal yi la fekk na dafa am ñeneen ñoo xamante ni ñoo ngi xët frontière bi di ñëw biir Sénégal di indi seen i ndongo di leen exploiter te bu ñu defee erreur erreur boobu dugg ci compte daara loolu yaakaar naa rôle état bi la te ñëpp war nañ koo dégg état bi aussi. président Macky Sall war na ko dégg moom tamit mu am ci beneen taxawaay bu bees ñu gën a sécuriser frontière bi ba képp kuy dugg ni da ngay jàngale daara ñu laaj borom xam-xami Sénégal yi ndax kii am na aptitude pour jàngale fi daara wala déet loolu tamit mu nekk lu am solo. Euh, Oustaz Baye Niass yow tamit ñu ngi lay jaajëfal ci xam-xam bi nga xamante ne moom nga ñu baaxee yàlla na yàlla fay la yiw bi jaa rasulullaay di leen fàttali ni toujours que ñu ngi ci programme séminaire de mise en niveau 70 mètres coraniques de la Casamance yi nga xam ne Maître Cheikh Ahmed Tidiane Tambidou mu xaddam moo ko taxawal ak xadara maliki ànd seeg Serigne Sidi Ahmed si al amin ñu nekkoon nag euh, Oustaz Muniru Nginaar Ngiraan ak euh, Oustaz Baye ñas ñu wax ñu xam-xam bu leer bu set ñu di leen jaajëfal di leen sant kon ñu ñëw ak euh, oustaz Abdou Aziz Koli Abdou Aziz ñu ngi lay nuyu di la dalal di la jaajëfal. Ah, sëñ Babacar ñu ngi lay fay di la nuyu di la am mbégte ci euh, invitation bi nga xam moom ngeen ñu invité aussi. <coughs> macha allah Abdou Aziz kon mu mel ni ni ko sa naataangoo yi defee muy oustaz Mounirou Ngiraan ak oustaz Baye Niass euh, yow tamit noonu nga ci war a ñëwee yow li nga xamante ni moom lañ bëgg nga leeralal ñu ko. mooy alxuraan ban rôle la am wala alxuraan naka la mën a régler problème societé bi lu ci mel ni góor jigéen bi nga xamante ni moo lëmbe jamono ji te ñu ngi gën a am doole Sénégal nag te fi mu nekk nii daanaka boo leen laalee sax ñoom dañ leen a protéger ba boo leen laalee mun nga am problème kon euh, maanaam alxuraan ban taxawaay ak ñooñ alxuraan ban taxawaay lañu am ci loolu pour xeex loolu mu jóge fi bismillahi irrahmani irrahim wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Serigne Babacar yi nga am kontaan lool ci question boobu nga laaj. Mhm. ndax euh, dañuy wax ni euh, yaakaar naa si ordinateur bi nga xam ni moom nga amee. Mhm. Euh, bi nga koy jënd kii la ko jaay daf la ko joxaaleeg notice. Mhm. donc notice bi toujours moo lay woon mode d'emploi bi. kon borom bi subhaanahu wa taala ginnaaw bi mu bindee àdduna ba noppi mhm. daf ko booleeg beneen notice mhm. notice bi mu ko boole mooy alquranul karim mhm. donc alquranul karim boobu moom boo xam ne moo ñuy wax naka la ñuy dundee ci àdduna alquranul ñu boole ko ak expert boo xam ni moom moo ñuy faram-fàcceel wax ñu lan moo baax ci ñun ak loolu moo bon ci ñun kon faram euh, expert boobu mooy sallallahu alayhi wa sallam pour leeral ko kon yaakaar naa ni Euh, problème yi ñuy dund ci àdduna bi yëpp man nañ am solution su fekkente ni delloon dellu nañ ci alquranul karim mhm. ndax euh, dañuy fàttali ni inna salaata euh, tanha anil fahshai wal munkari mhm. loola wax ju leer la mhm. mooy julli dina mën a dindi dina mën a régler man fee daq yi nga xam moom lañuy dund ci ñaawteef kon nga dégg ni ndeke li ñuy dund ci ñaawteef mënoon na réglé wu mhm. waaye ban façon julli moom la ñuy julli pour mën a dañ mhm. eh, yaakaar naa nangoo naa ci sunu mbokk bàññis mi ci lu bëree bëri ma koy jël exemple ci lu mel noonu mhm. muy wax wax ju am solo di wax ni eh, borom bi subhanahu wa taala ginnaaw bi ñu bindee ba noppi daf ñoo xam ni ñun dañu am feebar donc feebar bi ñuy faj mu jox ñu comprimé ñu mode d'emploi bi ngeen koy jëfandikoo mooy boo xëyee suba na nga jël ñaari doom Mm-hmm. boo demee ba tisbaar nga jël ñeenti doom mm-hmm. boo demee ba tàkkusaan nga jël ñeenti doom mm-hmm. boo demee ba tilis nga jël ñeenti doom boo demee bala ngaa tëdd da nga jël ñeenti doom ndax nga mën a wér kon su fekkente ni da nga jëlandoo doom yi ndax di nga wér déedéet su fekkente ni jëlloo ko beneen di nga wér kon ñu dégg nekk ñun problème crise yi ñuy dund yëpp yi yi mhm. nekk dañoo delluwul ci alxuraan karim mhm. pour mën ñu guider ban mhm. façon la ñuy mën a dunde ci àdduna pour mën a mucc kon li bonoon démb ba tey toujours mooy li mais lan moo ñu yóbbu ci ñu bon loolu borom bi subhaanahu wa mi ngi wax ni qul laa yastawi alxabiisu wa tayib walaw ajabaka lu baax lu bon àdduna du yàgg ba ñu mën a ànd mukk ba ñu mën a nuru kon la bonoon démb ba tey toujours mooy dox ti bon mm-hmm. kon nga dégg ni jamono moom mësul soppeeku mm-hmm. waaye ñun ñi amee jamono ñoo teggi suñu tànk fa nga xam ni moom lañ fa doon jaare yaakaar naa question su dégg naa ko mm-hmm. ñu pragmatique tënk noonu yaakaar naa dëgg la fekkente ni euh, am nga satisfaction ci question macha allah Abdou Aziz fa comme ni nga ko waxee euh, bu ñu dellu woon ci alxuraan yaakaar naa solution euh, problème jamono ji yëpp dina réglé wu ndax isa arata dunia fa alayka bil ilm iza aradta al axira fa alayka bil ilm iza aradta al ilma nag fa alayka bil quran kon loolu mooy li nga wax soo bëggee sa aduna jag dama nga wuti xam-xam soo bëggee sa alaxira jag dama nga wuti xam-xam waaye ñu ne xam-xam moomu nag soo ko soxlaa nan ngay def ñu ne soo bëggee xam-xam dama nga uti alquran ndax alquran moom mooy caabi moom mooy caabi xam-xam kon mu li nga li nga wax daanaka lépp leer na macha allah euh, ñu ñëwaat ci deuxième question bi rek mooy boo xoolee jamono ji mm, mun nañu wax ni respect bi ñu waroon a jox alxuraan ak daara alxuraan ak sëriñu alxuraan yi respect boobu euh, dafa des te pourtant euh, ku ku fi juddu ñooñ alxuraan ustaas bi wala imam bi wala sëriñu alxuraan bi moom mooy ñëw daal lay tudd noddu fii li xam fii daal lay tudd. ku ci génn àdduna itam eh, sëriñu alxuraan bi moom mooy ñëw ñu sang la ba nga set daat lay jullee ndax loolu ñuy ñaan ngir suñu boroom jéggal la ay aaya alxuraan la rek yoo xamante ni dañ koo tegale kon fa tabarakallahu macha allah pourquoi nag nit ki boo juddoo alxuraan la ñuy woo moo lay defar boo génn àdduna alxuraan moo lay defar te alxuraan moom ak ñooñu alxuraan moom respect bi ñu leen war a jox dafa des jërëjëf sëñ Babacar kontaan naa baax ci question bi nga xam moom nga laaj. Mm-hmm. ndax yaakaar naa buñ ci bëggee tontu lu simple la. Mm-hmm. dañu wax ni euh, pour nga xam schéma bi nga xam ni noonu la demee. Mm-hmm. Jibril alayhi salaam. ginnaaw bi yàlla bindee malaaka yëpp. yàlla mooy bind nu ko neexee moom la jël confier ko mu yóbbu wax yi. te kon moom mooy ki nga xam ne moom la yàlla tegoon ci moom alxuraan karim pour mu teg ko ci loxo yonent bi sallallahu alayhi wa su fekkente ni jibril alayhi salaam moom moo gën ci malaaka yi mm-hmm. ndax lan moom la yàlla teg ci moom alxuraan karim pour mun ko teg ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mm-hmm. yonent dellu si doon gën ji mbindeef ndax moom rek la yàlla jox alxuraan karim mm-hmm. xunt woo nga ni fa la alxuraan karim doon wàcc muy gaaru xira moom mooy ngën ji xunt yi ngir la alxuraan wàcc ci guddi gi nga xam ni moom la yàlla gënal ci guddi yëpp mm-hmm. yaakaar na Babacar mm-hmm. ñun ñëpp ñoo ko ànd xamandoo mooy laylatul qadr te li mm-hmm. tax mu gën mooy alxuraan lam ci wàcc dëgg la su fekkente ni laylatul qadr dafa gën ci guddi yi ngir alxuraan nga ca wàcc kon dama jàpp ne xool boo xam ne alxuraan moo ci nekk xayrukum man ta'allama alxuraan wa allamahu dëgg la kon yow mi nga xam ne da nga amee alxuraan boo amee complexe jàpp ni ni nit ñi dañoo jàpp ni nangam moo gën wala bërëb sàngam moo gën mhm. wala nit yi sàngam ñoo gën mhm. loolu si complexe bopp la waaye ki gëm ni xayrukum man ta'allama al-Qur'aan wa 'allamahu mhm. gëm ni euh, yonent bi sallallahu alayhi wa sallam li tax mu raw mooy yàlla alxuraan ji mu wàcc ci moom yoon jibril alayhi salaam li tax mu gën ci malaaka yi moom la yàlla confié woon alquran karim mhm. laylatul qadr li tax mu gën ci guddi guddi yëpp moom mooy alquran li mu ci wàcc chahru mhm. ramadan li tax mu gën ci weer yëpp mhm. mooy alquran ji ci wàcc kon lu la faqat sagarta ma azamahullah boobaa na nga jàpp ni yow maanaam tuutal nga mhm. woyofal nga loo xam ne yàlla daf ko réel kon nit du doyet yi mhm. nit du woyof mhm. nit da xam li yàlla jox waaye nag ni nga koy xamee mooy nga bañ a dum mooy alxuraan karim dum mooy alxuraan ñun dañuy jàpp mooy a jàng ñetti façon dum mooy alxuraan mu am man nga am hajrul quran al karim bil qiraati hajrul quran al karim bil amali waaye hajrul quran al bil tahkim kon nit mën nga gàddaay alquranul karim mhm. ci ndax jànguloo ko mhm. foo ko gàddaay inna inna xawmi taxadu hada alqurana mahjuran mhm. yenn saa nit mën na gàdd euh, gàddaay alquranul karim ci jëfe ko ndax jëfewu ko da nga jàng lii jëfe leneen mais mooy hajjurul quran karim bil tahkim te yaakaar naa mooy problème bi nga xam ne ñun moom la ñu dund ak mboolem réew yi bu man lam yaxkum bi ma anzala allahu fa ulaayika yu bëri yooyu nga xam ne humul kafirun dëgg la yaakaar loolu Euh, macha allah Abdoul Aziz Koli euh, kàddu yi rafet lañ ñu ngi lay jaajëfal di la sant euh, di jaajëfalaat mu Mouniru ak Oustaz Baye Niass kon mu mel ni palaato bi pare na dañuy tàggatoo rek ñu jox la sa kàddu yu mujj après mu Mouniru kàddu yu mujjum après Hadj Baye Niass ñu daal di tàggatoo. bu ñu fàtte itam ñaanal ñi nga xamante ni ñoom ñooy waa Widish Vision ànd ak Moussa ak élément am yëpp. tabarakallahu liggéey bu rafet bii ñu di ko def fépp nag ci këru diine yi amuñu xaj ak seen bu Tiwaawan soxlaa ñu dem Tiwaawan bu Tuubaa soxlaa ñu dem Tuubaa bu Njaasaan soxlaa ñu dem Njaasaan bu Laayeen soxlaa noonu bu fu soxla rek ñu dem def fa liggéey bu mel nii li nga xamante ni mooy message u sëriñu daara yi parce que il faut média pour ñu jàllale suñu message te ñoom loolu la ñuy yombal te am na fi ñoo xamante ne ñi ngi yombal ak mbon di ko jàllale wala ñi ngi yombal waa kër iblis li ñuy def pour jàllale ko waaye ñoom ñooñu alxuraan ak li waa alxuraan di def loolu la ñuy yombal pour jàllale ko kon waa Wadih Vision ñu ngi leen di jox mention spéciale di leen jaajëfal euh, Oustaz Abdou Aziz euh, dernier mot

vraiment ñu kontaan lool en tant que Casaçais. Mhm. puisque origine Casaçais la. de ah dëgg la waaw sama fii la ñëw. say mbokk mhm. eh, bi muy nekk ndaw. dëgg la eh, dabu si leeru alxuraan karim dabu si leeru Seydil Hadji Malick Sy radiyallahu anhu est-ce que donc loolu moo ko indi ba ñun ñëpp fa lañ juddoo dégg alhamdulilahi rabbil alamin dafa mel ni mhm. ñun bi ñu nampe fii mhm. dañoo waroon dellu foofa la mhm. ñu xam akas ñëw jëm ko fa tasaare waaye ñoom ñooñu fa wuutu kon ñooñu ñoom ñoom ñooy waawul jamaa joo xam ne ni yaaban an dammatin ñoom a remplacé wallaay ci loo xam ñun ñëpp waroon ko nag fii rafa yi dégg la waaw macha allah <laughs> yaa ngi dugg ci ci leçon naxu yoo xamante ne xam naa ne yéen yéen a ko gën a maîtriser jërëjëf yàlla yàlla fay la yiw kon xaaj euh, Muniru yow la nga tàggatoo. ah waaw tabaarakallaahu sëñ yàlla kontaan nañ ci plateau bi bu baax a baax a baax ndax yaakaar naa ni ñun ay nitu alquran lañu. Mhm. nitu alquran nag boo ko woowee pour mu wax ci alquran yaakaar naa ni war na ci war a mën a sawar. Mhm. loolu moo tax jataay bi tabaarakallaahu ñu bàyyi suñu it yëpp sawar ci lool. Mhm. kon kontaan nañ ci lool bu baax a baax a baax. di leen ñaanal seen télévision bi fépp fu ngeen. ko yaakaaree rek mhm. yal na yàlla yóbbu ko fu kawe seen njort incha allahu taala ndax yéen a ngi ci yoon mhm. ndax kuy liggéeyal alquran moom damay mhm. dégg ci sama sëriñ ba sëriñ Abdul Aziz Al Amin mu daan wax ni jàmbu yàlla gërëm Euh, loo ca laal lu mu tuuti tuuti. Mhm. daa bokk ca ngërëm la. te alquran jàmbu yàlla gërëm la. dëgg ko gannaaw nag laal ngeen ci. Mhm. incha allahu da ngeen bokk ca da ngeen bokk ca ngërëm la. amiin Muhammadul Busiri. Mhm. dafay wax ca Hamziya bi naan wa ida saxara al ilahu unasan li saidin. fa innahum fa innahum suada. wa ida saxara al ilahu unasan. li xidmati wa mahabbati wa mutaabaati saidin fa innahum suada. alquranul karim ku ne xam na ni. Euh, jaam la boo xam ni mën mhm. naa xam ne ci jaamu yàlla yi la bokk mhm. jaam la boo xam ne yàlla gërëm na ko mhm. kon nag képp ku ca laal lu mu tuuti tuuti tuuti suñu borom subhaanahu wa taala dana la gërëm te yéen yéen a ngi ci kon nag ñu ngi leen sant bu baax di leen gërëm asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh macha allah xaaju munul am na solo yàlla yàlla fay la yóbbu jaar rasulullahi xaaju Baye euh, kon xanaa ñu jox la sa kàddu yu mujj rek nga tàggatoog waa Wadis Vision xam naa yow moom soo son excellence euh, président Macky Sall laay interpellé directement rek <laughs> ni ko Oustaz Baye Niass nee na nga sécuriser frontière bi ba du ko mu neex dugg rek ànd ak say ndongo ñëw te ñooñu suñu defee fut mu dalaat ci kaw euh, boroom xam-xam yi nga xam ñoo nekk ci biir euh, Sénégal euh, ñi ngi lay jox kàddu gi nga tàggatoo gars yi. macha allah Serigne kër kontaan nañu di wax rek ñi kontaan nañ ci invitation bi. Mm-hmm. di leen ñaanal bu baax comme ni ko mbokk yi waxee. Mm-hmm. yàlla fu ngeen bëgg a yegg rek yàlla na leen yàlla yeggale fa ko sut oh, di nuyuwaat bu baax xaaj Muniru Ngiraan di nuyu mm. tamit uh, sunu oustaz oustaz Abdou Aziz Koli yàlla dogal na lu bëree bëri bëri ñoo moo ñu ko jàngal waruñu woon toog sax ci kanamam di wax waaye uh, woyefam rek moo tax ñu koy ñu ñeme loolu mm-hmm. uh, fa tabarakallah xanaa di santaat tamit Serigne Sid Ahmed mm-hmm. ak Serigne Cheikh Ahmed Tidiane eh, Tambédou mm-hmm. li nga xamante ni moom moo saytu lii waaye collaboré ak association eh, éducative mm-hmm. islamique mm-hmm. ñu taxawal mbir mu am solo mi nga xamante ni bépp jàngalekat da koy soxla mm-hmm. képp kuy liggéey sax da ngay soxla ñu dalee yokk ci fànn gi nga xam ci ngay liggéeyee moo tax boo xoolee ci Eh, inspection yi mhm. bu ñu toogee benn jamono dañuy woo jàngalekat yi yokk leen mhm. ci seen wàllum ci seen wàllum métier kon mhm. tey li suñ ko defee nekk na lu am solo euh, sëñ Babacar di eh, jéggaluwaat bu baax di wax nii ñoo ngi yemale foofu kàddu gi wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu euh, macha allah oustaz Muniru Ngiraan euh, oustaz Baye ñas ak oustaz Abdul Aziz Koli yàlla yàlla fay leen yiw yokk seen xam-xam Euh, yokk seen garaat seen i cër bi jaay rasulullah sallallahu alayhi wa euh, kon ñu tàggatoo ak yéen rek ñaanal kilifa yi nga xamante ne ñoom ñoo taxawal lii di mu muxaddam merci Ahmed Tidiane Tambédou euh, ak Serigne Sidi Ahmed si al amin yàlla bàyyi leen fii ba ci kanam ak kanam ñu yóbbu mission bi fañ ko bëgg a yeggale asalaamaaleykum wa rahmatullah ñi ngi tàggatoo ak yéen ba beneen yoon incha allah.